Euh, président man damay ñëw ci li nga xam ne mooy euh, projet de suppression des villes wala bokk leneen la man je préfère dire sort des villes parce que xamuñu lu mu wund moo tax ma lay laaj lan moo wundu maanaam projet boobu noonu lan mooy pertinence bi ak ban njëriñ lay amal njëriñ population bi et nit ñi dañu lay faral di ne am na ci projet yu am na ci loi yu bëri yoo ne boo koy def day am maanaam forcing ndax bii nii da nga ciy jot a waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo ko ëmb ñi acteur centralisation bi ak ñi nga xam ne ñooy élus locaux yem déet naka lay demee. jërëjëf laaj bu am solo la xam nga laaj bi buñ ko tegee rek ci yoon mën nañ ci waxtaan waxtaan bu dugg ci xel yi ñu bañ ko personnaliser wallu décentralisation Sénégal euh, ñaari communes yi fi njëkk am moo doon gore ak Saint-Louis. 1872 que boobu tubaab bi ñoo fa dëkk ba njëkk a nekk commune ñu teg si dakaar en 1880 1887 ñu teg ci Rufisque ñu mujj nekk les quatre communes 1872 ba 1972 si le président Senghor defee réforme boo xam ne mu ne léegi dëkku kaw yi nañ leen tuddee communauté rural jox leen suufu mbéy mi donc mu nekk communauté rural ay communes de plein exercice et puis foofu la yemoon après nag si biir euh, politique bi bi ñu demee ba 1996 président Abdou Diouf def beneen acte muy ñaareel bi mu ne léegi décentralisation toll na foo xam ne il faut ñu créer ay régions communauté collectivité locale ñu tuddee ko la régionalisation ba pare ñu créer ville créer ville bi ne donc ville bi de moom mooy ëmb ay communes d'arrondissement mais en réalité loolu boo koy xool ay PS ñoo fi nekkoon waxuma leen dara waaye dafa tombé woon ak seeni coordination coordination bu nañ ñu def ko commune d' arrondissement ab responsable yor ko ville bi ëmb loolu léegi ville bi nag kon commune d' arrondissement yi dafa mel na ay doomam lañu yoo xam ne moo leen di jox koppar dégg nga moo leen di jox moyens yi pour ñuy doxal te yenn yelleef yi amuñu ko woon par exemple maire d'arrondissement commune d'arrondissement mënu loon signer autorisation de construire amul loon vraiment yenn pouvoir yi bi ñu demee nag ba 2013 bi ma ñëwee ma ne man dama bëgg réforme en profondeur boo xam ne premièrement dañuy def communalisation universelle intégrale kon commune d'arrondissement bëggatuma mu am mais aussi communauté rural bëggatuma mu am parce que c'est pas normal que yow boo ne bokkoo ci dëkku taax dëkku taax amoo droit am tali bu ñuul amoo droit def lii amoo droit sax recruter communauté rurale noonu la meloon donc communalisation intégrale loolu mooy premier conséquence réforme bi ñu def ci 2013 ñaareel bi ñu supprimer conseil régionaux yi parce que dama jàpp ne dañu waroon rapprocher administrateurs yi ak gox yi nga xam ne moom la ñu yor ñu daal di créer département comme collectivité territoriale conseil départemental alors loolu ban conséquence la am donc ville bi léegi mu ngi flotter parce que commune d' arrondissement yi léegi commune de plein exercice la ñu maire ñoo yor seen territoire ñoo yor seen pouvoir dépendre ñu si maire de ville si lenn parce que elles sont d'égale dignité donc maire de ville bi léegi moom fan lay teg tànkam te ville bi moo yor koppari ci ni ñu tëdd tëggee décentralisation boo jëlee li ñu doon wax les taxes yu mel ni patente mu nekk léegi CEL contribution économique euh, locale foofu lay dem mais moom dina am koppar ba pare te amul benn obligation nag ci dispensaire yi léegi communes yi ñoo ko moom ñoo ko ñoo ko yor ñoo yor personnel bi école yi communes yi ñoo ko yor léegi kon ville bi lan lay def xaalis boobu luñ luñ koy def donc dañ ko jox communes yi ñu liggéey li nga xam ne nag aussi am na ci Sénégal yëpp muy conseil départemental ñu yaatal ko par exemple fii ci Ndakaaru Dakar déjà département la am na préfet Guédiawaye am na préfet Pikine am na préfet Rufisque am na préfet ak Thiès juróomi dëkk yooyu dong ñoo am ville ci Sénégal pourquoi waa Ndar aussi mënuñu am ville pourquoi waa Ziguinchor mënuñu nekk ville pourquoi ñu ne donc ñii juróom daal ñoom ñoo am droit nekk ville et puis surtout statut bi du question ville bi day dem déedéet Tëngéej c'est une ville qui date de très longtemps wax naa ko 1887 kon ville bi dana fi nekk ak périmètre bi waaye par exemple Dakar 19 communes yi mën nañu waxtaan xool su dee dañuy def intercommunalité même bokk ko waa Guédiawaye waa Pikine waa Tëngéej tout le Grand Dakar ñu xool nu leen état bi jàppale par exemple sur les ordures si yeneen i question kon du affaire politique parce que bu doon affaire politique la même ville bi boo ko dindee indi département mais ki waroon gagné ville bi kay su loolu amee tam mooy gagné département bi kon kon où est problème problème politique amu si problème bi mooy dañu def réforme boo xam ne dafa entraîner la caducité du statut de la ville ville bi ci boppam moom moo moo amatul sens ci réforme bi ñu def on peut aimer ça on peut ne pas léegi nag xaalis ba fa ne je pense dañ ko war a wàccee si commune yi li ci des yi itam ñu jox leen gëdd utal leen fiscalité utal leen aussi d'autres compétences yoo xam ne si diggante ville yi communes yi pardon dinañ mën a yor liggéey boobu donc c'est une réforme c'est pas destiné à une personne léeg-léeg dinaa dégg ñu waaw da ngeen ragal perte Ndakaaru bi ma fi toogeeg léegi juróom-ñaari élection moo fi am 2012 premier tour man maa gagné Dakar maa jiitu 2012 deuxième tour man la yàlla jiital Dakar 2012 législative sama coalition moo gagné 2014 élection locale moom la sama coalition perte Dakar muy benn 2016 référendum ñëw ma dugaat ci géew bi ñu gagné Dakar à 55 pour cent département de Dakar 17 élections législatives ñëwaat ñu mille gagné 2019 présidentielle ma gagné waat Ndakaaru léegi kon man ban man damay sant waa Ndakaaru d'abord ci ndam yooyu ñu ma ñu ma jox chaque fois que ma jóg élection Dakar yàlla suturaal na ma ma gagné ko kon waa Dakar man maa leen yoroon njukkal kon du affaire politique juróom-ñaari